président bu France bi ñuy wax Félix Faure ci atu 1899 da doon xeex moom it sëñ Touba. Louis Moutet mi nga xam ni moo nekkoon gouverneur Ndar bi woolu sañ Touba moom it dafa échoué ndax en 1902 bi sëñ Touba ñibbisee gagné ci tukki bi moom ci la dee fekk na boobu fonction jeex fii mu dem Martinique ci benn montagne bu ñuy wax la montagne Pelée benn éruption volcanique moo génn rey ko moog jabaram ak ay doomam ñoom ñëpp fa la ñu mujjee. kii nga xam ne tam moo ko doon xeex fii sëñ Touba dañoo mujj posone ko muy teeñ tanoor dañ ko empoisonné léegi nag rapport yi bari ñuy woolu sëñ Touba nag ndar léegi il faut mu xamal leen ndax amoon na ci ndar lu ñuy wax bureau politique mag ñi xam nañ lu leen mës a jaaxal bu ñu fa déclaré mbir ma dañuy woolu ki leen jaaxal agissement yi bari na ñu ne il faut sëriñ Touba ñëw sëriñ bi ndigalu boromam képp lay xaar biñ ko woowee lu bari laaxan yi bari ñu dem ba atu 1895 dama ko tënk foofu rek 1895 ndax gudd na lool. 1895 boobu bi ajustement yi baree coow li bari ñu jàpp ne day jihaat ak ñoom tubaab bi fekk ci semaine boobu am na ku ñuy wax buur ba jolof sëñ Fallou def na ko kaset ku dem déglu ko dina gën a leer ci yow te sëñ Touba ko jur fekke na koon nee na buur ba jolof daa nuy si woon sëñ Touba seet si ko bi mu ñëwee sëñ Touba teraanga la am mu ganale ko toppatool ko ay xéewal buur ba jolof ànd nag ay soldat ñu yor seeni ngànnaay mu visité sëñ Touba bi mu fa jógee dem maam Abdouloo moo kalaame sëriñ Touba nu mu ko kalaamee dafa sàcc tampon bu buur ba jolof sàcc benn feuille blanche ca ndar bind ci leetaram sàcc tampon kilifa gi nga xam ni buur la tamponné ko ci mu mel ni buur ba jolof bind lettre bi bind ci lettre bi ni man buur ba jolof ak Cheikh Ahmadou Bamba ñoo la bind lettre yow gouverneuru Ndar bu yeboo nga waat bettuñu la dinañ dal ci sa kaw def ak yow guerre sainte te suñ la ko waxee war nga koo gëm ndax ñu ngi ci sa kaw semaine passée rek dem naa gane ji sëñ Touba ñu lay waajal loolu nekk loo xam ne kenn mënu ko lijjanteeti ñuy yónni nag ndaw pour sëñ Touba leeral ci loolu sëriñ bi wax sëñ Mbàkke bu so na ko bindal ab lettre lettre boobu xam ngeen ni maam nu la yónni woon mu demal ko ndar ci situation bu dangereuse waaye borom daaru ak détermination ak fitam ak njàmbaaram ak wóolu Serigne Touba ak bëgg ko gëm ko mu taxaw ndar ak détermination wan ko gouverneur ni ko bokk leen yéen ñaar ay jëmuwaay li ñuy nettali ci yow bokkut ak li sëñ bi bëgg yow adduna ngay wut sëñ Touba yàlla lay wut lu dul loolu ay tuuma la fekk na sëñ Touba moom ñëwul ñu gëm ni kon comme sëñ Touba nangul te répondre kon dëgg la ci la ñu yebale ñu ko jël si loolu mooy zahir bi baatin bi nag mooy lu sëñ Touba doon jënd ci yàlla boroomam ndax dama lay jox contexte li tax mu tukki lu mu doon jënd ci boroomam bu ñu fàtte ni sëñ Touba wax naa leen léegi dafa bëgg a nekk xaadimu rasul dafa bëgg tam ëllëg ñu ko yaakaar ñépp mu mën leen a tàbbal aljana ndax ku dul sëriñ Touba waxoo sa njaboot dinaa leen yóbbu aljana moo ko bind moom te leer nañu la mu ngi ci téere yi kullu muridin bi yaloosu yasadu wa innahu min al azamu baadu moo ko bind léegi loolu nag il faut mu jot ci kon lu koy permettre bu ëllëgee ci kanamu boroomam mu ramm ñi ko yaakaar il faut tam mu am daraja boo xam ne kenn mësu ko am te wax na ko bi mu ko amee daraja tii temps wa laysa tan xafit wa man naha min al wara xaf di xufit sama daraja féete kaw daraja yépp koo xam ne dalaa metti nga bëgg koo suufeel di nga mujj suufe ba kenn dootu la tudd dara jaam wër na àdduna loolu nag bi mu ko soxlaa faawu ki ko war a joxe signal ko ko ci la dugge nag li ñuy wax ixtikaaf mooy fukki fan yu mujj ci weeru koor ca jàkkay daarul xuddoos yu sëñ Mbàkke Madina foofee la ko yanantu bi feeñoo jëxërën laaj ko loo bëgg mu ne ko damaa bëgg sama digganteek yow bu fa kenn taxaw naa agsi ci yow di xaadimu rasul di la liggéeyal yanantu bi wax ko condition yi tax nga am ko ni ko du yomb bi ci njëkk da ngay génn dëkk bii di Touba pour yàlla teg la ay épreuve yoo xam ni épreuve yooyu soo ko matalee muy sa mission di nga am li nga bëgg te épreuve yi dina tolloog deux cent quatre cinq épreuve benn bu ci nekk moo gën a metti xar mu ñuy fees te rendiw ñu ko te yenant yi fi jaaroon seen nattu yëpp la ñuy teg sa kaw yow rek nga attan sëñ Touba ni jaral na ma ko bu ñu ko mënee teg sama kaw dinaa ko dékku ñu ne ko bi ci des da génn Touba gii ndax feeg yaa ngi fi du la dale fii Touba yàllaa ko aar lu metti du la fi dale mu ni damay tuxu dem sañ ci Mbàkke Baari Jolof ñu ne ko sa nijaay sëriñ bu soobe mooy xut bu jamonoom te moog sa wéejur jigéen a bokk lépp bu yàlla dogalee mis loolu di ñëw sa kaw du seetaan faaw mu ñaan yàlla du ko repousser mu ni kon bu fekkee mën na cee bañ a intervenir tam baax na pour mission bi dal ma ci jamono yooyu la ma euh, nijaayam génn àdduna ci 1895 gi fekk fi na sëñ Touba sanc na Baari Jolof def fa diir bu tuuti ne yaayam nuyu si na ko fa sax benn yoon ginnaaw bi nag bi mu demee Mbàkke Baari Jolof ci la nag léegi mission bi mate sëkk nga xam ne sëñ Touba 6 mois la def Mbàkke Baari Jolof léegi kon ci baatin muy le côté ésotérique jot na li mu bëggoon ci yanant bi pour nattu yi dal ko le côté exotérique muy ci biti am na problème bu ko opposé ak tubaab bi ci wàllu autorité te taxaw na pour wéetale yàlla ak roy yenantu bi ak taxawu diine islam war koo sauver léegi nag lii moo tax ñu déterminer wu ni sëñ Touba dañ koy génne exiler ko pour ñu exiler ko nag il faut ñu am un alibi prétexte ci lañ doon wooloo ay naatangoom ñu ñu jàppee naatangoom lañu woolu ay kilifa yu bari woo leen bureau ba ca ndar le 5 septembre 1895 Serigne Touba taxaw yëkkati islam ni du ma ànd ak yéen ci li ngeen woote yàllaay sama borom yanantu bi laa roy moom laa bëgg alxuraanay sama constitution ñu décidé téye ko fa 38 jours door a décidé nag indi ko Dakar door a ko exilé mu dem Gabon loolu mooy cause tukki sëñ Touba ak taxawal la mouridisme. très bien kon euh, ci noonu xanaa dañuy ñëw ci ñoom sëñ Saliou rek ah ñëw ñëw ci ñoom sëñ Saliou. am na solo. Mhm. sëñ ñu ngi lay gërëm bu baax. moom lu mu la wax dalay wax source bi. Mhm. wax na dëgg ku tedd ki moom léppam la jël jox Seydina Mohamed ni faali wa ibixaa yi wa fawzi bi laa anan bi kaw ni xadimal Mustafa tatabayanu comme que ñu ngi ci exil bi moom way na lu neex Serigne Abdul Ahad ci ayaasa min na laay